nañ nekkal yàlla te nañ nekkal yàlla te nañ ko wel yitte yi te nañ ko wel yitte yi yàlla amul dayo séyru amul dayo kon nag kon nag boo ñëwee ci sëriñ boo dikkee ci sëriñ bu la bëgg a jëriñ waxu bu la bëgg a jëriñoo waxut ba la bëgg nag dafay bëri ba nga jeex ci day bëri moom sëriñ ba da yow mi ko dikkal nga jeex tàkk ci yàlla ndax feeg jaam jeexut ci yàlla ndax feeg jaam bi jeexut ci yàlla ak bokkaaleem dañ gut fokk nga jeex ci yàlla pour mucc ci bokkaale fokk nga jeex ci yàlla tàkk soga mën a mucc ci bokkaale fokk nga jeex ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fokk nga jeex ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko moy lu moy loolu ay makama ngay ñëw ci gannaaw ay makama ngay ñëw ci gannaaw sayru tasayru sayru bu matee ba nga delluwaat ci zatu su mate ba nga delluwaat ci zatu bu fekkutoon nga jeex yenen do dootoo xam ci yenen bu fekkutoon nga jeex ci yenen do to xam mukk koy yenen ko xamul yenen do jote yalla dara te ko xamul yenen yonent bobu do jote yalla dara moy buntu yalla ku fa jaarul do dem loolu modi di yalla yenen yonent moy buntu yalla yàlla ku fa jaarul yenen bi mooy buntab yàlla ku jaarul ci mom do dem dañ bari ba nga jeex ci sëriñ bi na nga bari ba jeex xarit yi sëriñ bi la bëgg a jëriñ dana bëre ba nga jeex ci sëriñ bi sëriñ bi la bëgg a jëriñ dana bëre ba nga jeex ci sëriñ bi ndax moom itam ndax moom itam su maqaama yi ngay yóotu si maqaama yi ngay yóotu si su sa sayru taxawul bu sa sayru taxawut da nga mujj boo jeexu doon ci sëriñ bi doo xam ci sëriñ bi da nga mujj boo jeexu doon ci sëriñ bi doo xamante kuy sëriñ lii moo tax de looloo tax de seen ngeen yéene sayru seen njëlbéenu sayru. ñu ngi leen di yitte. boo jeexale boo jeexale te dox ci melo ci yi. ak turi yàlla yi. ak turi yàlla yi. te jaar ci xaybu yi nga war a jaar. ba jaar ci bu yi nga war a jaar. dañ lay jëf bu xaat yoonu ñaareel nga dellu ci dañ lay jëf bu xaat yoonu ñaareel. nga dellu faatu day fekk nag dëgg dëgg doo mën a am dara lu am lu may jëm yàlla ji ndax fekk nag dëgg dëgg loo xam ne du man a xam mukk lu may jëm yàlla ji te nekkuloo ji fanaaw te kat taxul nga nekk booba waaye da nga xam ne dana nekk ko rek waaye dana la wóor tëng ne dara nekkul waaye du tax nga fakk yonent bi waaye du tax nag nga fakk yonent bi ci nelaw yàlla wu jëkk ci nelaw yàlla wu jëkk du tax nga fakk sëriñ bi du taxit nga fakk sëriñ bi ndax melo yàlla la ndax melo yàlla la waaye nag dootoo leen gis mukk waaye nag dootoo gis de dootoo gis seen jeexit dootoo gisit seen jeexit jëm yàlla ji rek ngay gis jëmmi yàlla ji rek ngay gis ñoom boo leen gisee jëmmi yàlla ji ngay gis ñoom ñoom boo leen gisee jëmmi yàlla ji ngay gis ci ñoom ma ne ci sama njël beeni sayru bàyyi mu ne ci njël beenu sayroom am naa di bu yàgg di wax ne man daal xam Cheikh Tidiane mën a jaar ba gën ma am na diir bu yàgg di wax ne man daal dëgg-dëgg xaw ma ku Cheikh Tidiane mën a jàpp dëggam ma. ba nekk sama sëriñ. man ba mën a nekk sama sëriñ. gannaaw nag la ko ko yàlla xamal. gannaaw gi nag mu ne la ko ko yàlla xamal. ma ne moo mooy sama waasitatu ci ci maagal. mu ne nag mooy waasitatoom kon ci fi mu àgg. bi mu nekkee sama waasitatu rek wasaatatu boobu la ma. bi mu nekkee waasitatoom rek. wasaatatu boobu la ma tuddee ba nekk sama sëriñ. wasaatatu boobu moom la ko tuddee ba nekk sëriñam. xam ngeen maj soob yàlla dana koy jay lool ci maqaama xam ngeen ne maj soob yàlla dana koy jay lool ci maqaama te dëgg rek la wax te dëgg rek la wax kat ndax ku nekk ci péyeb yàlla bi nga xam ne mooy lépp moo moom lépp ndax ku nekk ci péyeb yàlla bi nga xam ne mooy lépp te moo moom lépp bu feeñ bu la feeñoo bu la feeñoo wala na lépp lu ma xam yow laa ko may wala na lépp lu ma xam yow laa ko may da ngay wax ne yàlla may na ma lu ma may kenn te dootu ko may kenn da ngay wax ne yàlla may na ma lu mus da may kenn ci dootu ko may keneen nag loolu maj soog dana koy wax loolu maj soog dana koy wax ku ko dégg defe ne mustahil la ku ko degg defe ne ndax loolu dafa jomb ñu xamut defe ne karaama yu jago benn sëriñ la ñu xamut defe ne ndax ne karaama yu benn sëriñ jagoo la fekk maj soob bu ne jaar na foofu fekk maj soob bu nekk jaar na foofu maj soob bu taxaw na taxawaay boo xam ne ko jox na ko lu mas a jox kenn te dootu ko jox kenn maj soob bu nekk taxaw na taxawaay boo xam ne wóor na ko ni yàlla jox na ko lu mus a jox kenn te musu ko jox kenn tejliyaatu yàlla yi tejliyaatu yàlla yi nag xaarifina yi dajeeg ñoom xaarifina yi dajeeg moom ku nekk tejli ba nga dajeet kenn musu dajeeg moom te kenn musu dajeeg moom ku nekk tejli ba nga dajeet kenn musu dajeeg moom te keneen dootu dajeeg moom te terewul yàlla kenn la rek te terewul kat yàlla kan, kenn la moom alquran di wax naa wa taral jibaala yang jaamidatan wa hiya tamurru rumah sahab yaa ngi janoog doj yi mu ne yaa ngi janoog doj yi yaa ngi defe ne dañoo taxaw yaa ngi defe ne dañoo taxaw sa ñu ngay dox dox bu gën a gaaw sax bi niir yi dox te ñu ngay dox dox boo xam ne moo gën a gaaw dox bi niir yi dox ci kaw foofu ci la aarif di xamee ne foofu nag ci la aarif di xamee ne jëmm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi jëmm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi ak jay ñibbi bu bi tasee du benn ak bay ñibbi bu jotaay bi tasee duxul benn te jëliyaat yaa ngi wéy rek te jëliyaat yi daal mu ngoog di rek ma du yàlla la feeñu ci kii te du duxut ne yàlla la feeñu ci kiiyam benn feeñu ko wéy na benn feeñoo ngoog wéy na bu feeñu xaat la ci bu ñaareel bi dugub bu njëkk ba bu ñaareel bi xam nga kenn li bu njëkk bi yàlla feeñu ci baay bi yàlla feeñu ci baay bi moo feeñu ci doom bi moo feeñu it ci doom bi tëjëli at yi bokkul xam ngeen ne yooyu day bokkul loolu ba doom lu mu nidu nidu loolu moo tax doom lu mu nidu nidu bàyyam fokk mu xam ne ay mbokk bokk ndey bokk bàyyi ay mbokk bokk ndey bokk bàyyi fokk am luy wute fokk rek nga xam lu ñu wute ndax tajali yeeg lu tax tajaliyeet yi dañoo bokkul bokkul dañoo wute mbooloo mi génnoon ci néeg yi daje fii mbooloo mi génnoon ci néeg yi dikk daje fii wéy nañ bu yàgg yàgg yàgg mbooloo dem nañ bu yàgg ñeneen ñeneen na fi nekk ñeneen kat ñoo fi nekk bu jotaay bi tas ñeneen na fi jógee bu jotaay bi tasee ñeneen na fi jógee ci xàq tajaliyaat ci wàllu baatin kay ci xàq tajaliyaat yi ci wàllu baatin waxuma ñi ñu way nag di gis lu may duñ gis lu may lenn waxuma ñi way nag nga xam ne duñ gis lu mooy lenn. duñ gis lu mooy masaayir gisuñ dëgg-dëgg gi. duñ gis lu mooy dëgg-dëgg gi. ci kaw loolu. ci kaw loolu nag. lépp. lépp. lenn li la. lenn li rek la. lenn li mooy lépp. lenn li itam mooy lépp. ca asal ba ca abat. ca asal.